ñëwaat ak yéen euh, ci entretien spécial bu ñuy def tey ak euh, Ibrahima Diop Ibrahima Diop nag moom candidat la ci liste intercoalition Yewwi Wàllu ci élection législative du 31 juillet fii ci département Europe du Nord du centre ak de l'Ouest émission bi nag lu ko tax a jox candidat yi wax ak sénégalais pour nous xam parce que objectif est que que sénégalais xam ñan la ñuy Si nous, suba nit dem assemblée nationale finalement nous regrettons lu nous ngeen votel ko donc dinañu jox candidat yëpp parole ñu wax ñu jéem a xam nous jaar nous ñu jéem xam aussi Sen gis-gis aussi Et nous euh, am nañu chance euh, dalal Ibrahima Diop c'est notre premier invité ci entretien spécial Ibrahima Diop je ngi lay maa fay Sylla waaw Ibrahima tey yow la candidat nga l'élection élection législative euh, pourquoi yow sang décidé bëgg a candidat Waouh, d'abord je tenais à remercier ma famille politique qui est là donc coordonnée par euh, mon ami et frère Maïse Touré donc euh, nous sommes Famara ñoom Daouda Sow ñoom Tafa ñoom Majigen et mon ami Eric l'infatigable Eric mhm. donc je remercier aussi mon cousin donc euh, di remercie mhm. euh, di remercier aussi nous nga xam ne ñoo leen di suivre ci ci ci sa média bi mhm. le remercier aussi parce que gis nañ ni sa taxawaay donc gis nañ ni yow journaliste ba nga wax boo qui fi France amul parti politique bu a taxaw fi nga far wala feulé la far donc yow donc def sa liggéey ni ko ni ko waree na donc euh, au nom du parti démocratique sénégalais aussi et particulièrement la fédération en tant que chargé de la communication de cette structure aussi je peux témoigner que depuis 2012 activité bu ñu def fi en France nous nga taxaw def sa liggéey namu waré donc lolu aussi ñu ngi la ciy remercier di remercier sénégalais yi nga xam aussi ñu ngi sétane mais particulièrement les sénégalais de la diaspora et plus particulièrement ñi nga xam nak ñoo nekk ci suñu circonscription non, madame Europe du Nord du centre et de l'ouest mhm. di aussi wax émission bi ñu ci bismillahir rahmanir rahim genn ci rabil alamin té lepp luñ ci wax di hmm. question bi moy lan décidé parce que nous sommes ñu c'est vrai euh, honneur là, mais a bu là aussi hein. tout à fait lolu la aussi remercier parti hmm. parce que nous sommes reine député parti sans exception ñëpp ñoo ànd ne ren Ibrahima Diop lañu ñuy donc man lañu ñu jiitaloon ma tête de liste mais biñu ñu ba ci biir waxtaan bi ñu am un accord entre euh, euh, waa yewi Askan Wi donc bu loolu amaatee aussi la fédération mais se trouve à convoquer une assemblée générale d'urgence mais aussi fédération choix bi mu njëkkoon def mom lañu euh comment dire maintenir. ñu ne mm-hmm. Ibrahima Diop ren yow yañu doy donc lolu nak je pense que yenn le bou d'abord parce que euh, une fédération de France qui est fa responsable wala ngay militant mérité liste mais comme nous avons bu ñu je pense que ça c'est le que je pense que comme ni dit, di que aw ma sas parce que lu nous parce que nous disons depuis 2017 nous nga que dañ avons a fal leen APR ñom manam dañoo jariñul circonscription bi dara. amul Ben sénégalais bu la mën a tax bu mën taxaw wax né mas dajé sur le terrain parce que aussi député buñ la falee dañoo bëgg nga dem à la rencontre des sénégalais xam seeni problème xam jafé jafé pour mën ko transporter à l'Assemblée nationale. à défaut que nit ñi trouver ci ay solution au moins ñi nga nekkal xam nañu ni yow jafe-jafe yi ñu nekk yaa ngi koy jëlee fa ñu nekk di ko yóbbu fa ñu ko war a saafara. waaw mais Demba Demba Sow moom di tout le temps que day di jàppalee sénégalais xanaa kañ loolu lu baax la. non Demba Sow benn yoon lañ ko mës a gis assemblée moom sax moo ne ci yeneen député yi mais ni ba seen. Hmm. tey boo laajoon fii kan mooy ni ba seen kenn mënu laa wax mooy kan parce que nit ñi xamuñu ko. amul benn njariñ seen euh, comment dire euh, euh, assemblée te aussi man xam nga damay faral di wax ci campagne bi ne ñu bëri bëgguñoo doon député. parce que image du député la ñu yak ba tay ji sénégalais bo ni woon kay doon député mu bañ man yaakaar naa ni suñu première mission ñun ñi nga xamni en tout cas ñoo wara bëgg dem ci 14e législature bi moy fexé réconcilier l'Assemblée nationale avec le peuple sénégalais ba député bu taxawé di wax nit ñi am ci mom yakar d'ailleurs gis nga campagne bi démb dañu nekkoon euh, Sarcelles hmm. mais sénégalais bu ñu rencontré ñu ne mbaa du ngeen mel ni ñi fi jóge woon des fois da ngay dem ba yow le discours politique est inaudible maanaam amatul dégg-dégg boo xam ni politicien bi mën na koo wax jëmale ko ci sénégalais yi ba sénégalais yi gëm ko parce que le discours politique est biaisé politicien dañoo jàpp rek ne mooy koo xam ne bu bëggee am day ñëw wax lu ko neex bu ñu ko falee kenn dootu ko gis mais loolu aussi lu war a jeex la ci ci ci politique. ñun daal en tout cas li ma xam ni yaakaar nañu ko en tout cas ñun ñi nga xam ni ñoo nekk ci liste en tout cas intercoalition bi yeewi ak wàllu. Mm-hmm. bu ñu ñu falee dinañ gis un nouveau type de député. Mm-hmm. kooku promesse la boo xam ni defuñu ko ngir euh, comment dire avoir un un un mandat defuñu ko ngir bëgg lu neex sénégalais yi dañ koo def parce que yaakaar nañu ne nag jot na Sénégal ay jeunes ay femmes ay adultes quel que soit l'âge ou quelque bord qu'il se soit

Wow, Lolo. Hmm. je pense que peut-être que Touré mom dina ci dina ci parce que euh, sawaruma di wax ci mais je suis né dans le parti démocratique sénégalais. Hmm. Euh, j'ai grandi dans le parti démocratique sénégalais donc j'ai fait tout mon parcours politique dans dans le parti démocratique sénégalais de l'école au collège en passant par le lycée et par l'université donc occupé yon nak, ay poste poste de responsabilité yu mak, au niveau du MEL de l'IGTl donc doonoon ko un jeune bo xam j'avais la confiance du président de la République parce que président dit jël jeune boudan voyager chaque parce que avion de commandement amna et ay ministres yoo ils ont fait plus de douze ans avec Abdoulaye wad mosuñoo texte seen tànk ci avion de commandement. Hmm. mais Abdoulaye wad boudan voyager man bokon na ci jeune yi nga xam ni da jël di avion de commandement Bokon na ci jeune yi nga xam bou problème masaana am ci réew mi wala mu am ay projet bokon na ci jeune yi nga xam dañ leen di convoqué ne leen nii laa bëggee projet bi ñu wax ci suñu xalaat ñu bokkoon na ci jeune yi nga xam ñoo doon déroulé loolu aussi au Sénégal. Mm-hmm. donc loolu lépp je pense que effectivement mes mes frères et mes sœurs de parti ñoom bu ñu ñëwee ci volet politique boobu dinañ leen wax Ibrahima Diop fi mu jaar ci politique. mais li ma la mën a xamal daal mooy bu dee expérience politique nag je pense que li may tooñee sama waa ji Sow léegi nag dama naan ko wax dëgg yàlla. Euh, yagna ci kéro Ablaye wad ba fi ni man na mën professeur nak ci politique. mais boo nee PDS nga juddoo xanaa sax wajuri ñoo don def politique wala da nga bëgg woné ni da nga teel a dugg ci politique. non non man dans ma famille franchement mes parents mësuñu def politique. mësuñu def politique par contre sama maam ki jur sama yaay. mom mhm. c'était un socialiste bu mag. donc sama papa xaritu mbay Jacques Diop la woon. parce que mhm. nit bo démé ba ngeen tudanté dom ku nekk. Euh, donc mais ñom mësuñu def politique samay samay samay samay parents man dal ma juddu rek d'ailleurs loolu lañ ma daan togné dama juddu rek yalla xiir ma ci Abdoulaye wad voilà buñu ñu nek a nekk kër bu ñu cortège Abdoulaye wad jall na rek ma bu doon dama daan añ sax damay jog daw top cortège bi booba xalé bu ndaw la won booba xawma ni won dina mas dem bay def politique mais luma gën di mag rek di gën am cofeel ci Abdoulaye wad ñu demoon nak ba comme tous les jeunes de, de, notre temps, de notre époque, mm. nous donnons franchement des, des, des, des, des inconditionnels de Abdoulaye Wade. Mais ses parents, ils règlent affaire bobu tax ba sa jang yakouko par exemple. Non non parce que man nak dama télé no bëgg xam limu bëgg. Hmm. Parce que man bima démé ba ragné dama né won politique dugguma ci ngir nekk ci ñiy tàccu ah non non dama ci dugg pour beaucoup ci ëllëg ñi nga xam dañuy décider lolu je remercie encore une fois de plus le président Abdoulaye Wade permettre na ma ma xam état permettre na ma au moment où nous étions au pouvoir may fréquenter ay ministres di fréquenter ay députés di fréquenter ay présidents d'institutions, de di fréquenter ay premiers ministres y compris d'ailleurs Macky Sall donc ko xamni xamanté nañu dans le cadre du du du PDS donc lolu lepp aussi c'est grâce au président Abdoulaye Wade di ko ci gërem di ko ci fii ma la toll toll daal li mala la xamal moy dal mom politique si hein? bu dee dañ ko war di man warna taxaw ci kanamu élèves yi wala étudiants yi di len ko jangal parce que nak Ablaye wad formé na ma sama carte parcours politique aussi je pense que ni fi ma tollu jaar na amna naa jaar-jaar ni bon je pense que lolu du lumay prouver ici en France et en Europe. pour nga laaj fi nit ñu ne la xamuñu Ibrahima Diop. Hmm. je pense que lolu lu jafé lay donne. Hmm. donc kon ni ma la ko waxee rek donc. Ablaye Wade Dal tek nañu ci yoon ñor nañu xomb li ci dess nak mooy ñu dem assemblée nationale. mais ça c'est sur le, sur le plan politique mais sur le plan académique est-ce que yow am nga euh, jaar-jaar bi nga xamni suba sa te yow bo demoon assemblée nationale ñu jox la ay texte de loi wala jox la ay documents di di di ko man man euh, lire man ci jël ay ay ay décision man ci jël ay ay ay ay renseignements yu bëri pour nga mën défendre population parce que euh, c'est vrai que assemblée nationale même ku jàngul war na ci mën dem mais peut-être aussi que boo amoy boo jàngee amay compétence war na la mën a dimbale non waaw loolu nag maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax hmm. man ba jàng jotee dama jàng fa mu gën a kawee dëgg yàlla donc euh, science politique droit sociologie des organisations et du travail dama suis donc humanité c'est entre la France et le Sénégal sama diplôme euh, supérieur yi hmm. France l'a ko avec la manière donc santé je ba Donc, je suis di donc je na a donc complexe pour nourrir ci qui ci diplôme donc loolu aussi je suis je suis parce que man moom oh, dañ maa waxoon rek. bokk nga ci ñuy politique du métier. Ah. en ah, gros politique du métier parce que man dama am sama métier D'ailleurs, ailleurs yow sama collègue nga ñoo nekkandoo dans l'éducation nationale. Mhm. donc ça fait plus de dix ans quand même ma nekk un fonctionnaire de l'État français. Mhm. donc de servir le au niveau de du service public de l'éducation nationale. Mhm. donc macha donc euh, man daal am sama métier wax donc politique effectivement du métier parce que li ñu nous xam nga li tax ñu politique du métier. boo gisee ceux qui sont autour de Macky Sall. lu tax Macky Sall mënta dem parce que Macky Sall ñi ko wër ñoom dañoo jël politique def ko métier te politique du métier moo tax nag fi mu ne nii jaral na leen fu ne pour ñu ñu ñu téye nguur gi mais loolu nag moom dama koy wax xam naa ni dañ ci ñëw tuuti. Mm-hmm. lépp lu mu leen jaral ñoom pour ñu téye nguur gi dans l'illégalité. Mm-hmm. dinañu ko jaral ñun. inshallah ñu xex ba nangu comment dire nguur gogou tek ko ci loxoy sénégalais ñu xol en 2024. Hmm. ki nga xamni mo wara mëna jité Sénégal tek koku nak mom je pense que ñepp xam nañ ni ki ma andal moy Karim Wade koku lañ yakar ni c'est l'homme de la situation mom bu ñëwee. d'accord koku après dinañ ci ñëw mais à part politique ak sa liggéey lan moy yenen activité Ibrahima Ibrahima lan lay def dans la vie à part à part yooyu est-ce que des intéressé aussi yenen affaire Waouh, xam Ibrahim aussi c'est un sportif. Hmm. donc euh, man à part politique avec mon métier donc euh, dama dama sport sama centre d'intérêt bi nga xam aussi franchement. dem suivre ay match wala. Ah, non non non pratique donc man. Ah. xam nga man bima amé bima bima amé bac dañ ma orienté université Gaston Berger. Mhm. université Gaston Berger xam nga n'importe qui lañ fay lañ fay lañ fay voilà bima amé sama bac avec franchement la mention. fala bi ma demee foofu commencé di pratiquer judo. donc di def ay compétition di di di di voilà au niveau universitaire au niveau régional donc aussi à en 2012 ce n'était pas possible parce que le la situation politique ne nous je vous raconte une anecdote mhm. de 2012 à 2014 2015 même suis dem au niveau du rectorat pour nous un temps partiel parce que je suis combat bi fi mu ak euh, xeex bi mënatul woon chaque jour may dem di ja dama loon moment yooyu nañ ma defal un un temps partiel pour ma mën a consacrer wu aussi ci combat politique bi parce que moment boobu gisoon ngeen ni Macky Sall defoon PDS. donc jël Karim Wade tëj jël toute la direction du parti euh, démocratique sénégalais dugal ci kaso bi ne day toroxal Ablaye Wade il fallait des jeunes engagés comme ñun. fii nag bi ñu ko defee organisé. c'est vrai que euh, loolu mën naa ci indi témoignage ñu bëri dañuy ne fédération PDS de France mo amorcé won combat bi be be be, ba yeneen fédération yëpp quoi après hein. Mm. mais lolou moy li am parce mm. que 2012. Mm. quand on a perdu le pouvoir yow ak journaliste nga xamone nga fédération France ni mu melone fi ci ci ci ci France. tout à fait. pratiquement ñepp dem Ablaye Wade may se Touré bon xamna may se Touré parce que ñun ñepp aussi. Ablaye Wade daf ñu jëloon teg ñu ci loxo Maïssa Touré bi ñu au pouvoir donc moom mu nekk aussi ko xamni pratiquement moo ñu formé ñun ñëpp ah suñu formation daf ci participer de manière positive. Mm-hmm. bon Maïssa nak jël ñu parce que xamna ni ñun on ne trahira jamais Ablaye Wade on ne quittera jamais le PDS jamais. parce que ñun biñu nek nekk PDS ngëm-ngëm xam nga que le ne bi muy top Ablaye Wade boobu xamul won sax ni dina def politique lolu lu lu lu fort la. Mm-hmm. donc effectivement ñu la jël combat bi. Euh, yenu ko dëgg yàlla teg ko fi ñu ko war a teg ba yeneen fédération yi nga xam dañu nekkoon même à l'extérieur la diaspora au Sénégal xam ni ñii aussi jar nañoo topp pour que combat bi nga xam ni moom parce que survie lañ nekkoon moo tax bu gars yi naan ñu non da ngeen a waroon a renouveler lii may leen ñun ñu woon renouvellement parce que Macky Sall dafa bëggoon a détruire le parti démocratique sénégalais phase bi ñu nekkoon mooy phase u xeex bu ñu jógee phase u xeex nag ba ñu libérer Karim Wade dans les conditions que nous connaissons tous et il fallait aussi au niveau du parti, parce que Macky Sall avait ses pions au niveau du parti. Ces traîtres-là, il fallait les, les, les, les détecter et les, faire sortir du parti. Donc, lui, je pense que nous na ci ascension de nous permettre à l'issue de ces élections législatives là si on a la majorité de faire revenir d'abord Karim Wade et de nous réorganiser pour préparer les combats futurs c'est-à-dire et particulièrement d'ailleurs moi, bi porter Karim Wade à la magistrature suprême en 2024. Nous léegi ñu ñu ñëwaat <laughs> campagne électorale euh, proprement euh, dite. Il euh, y a une campagne. Mm-hmm. ça fait un peu plus de 10 jours y a ngi terrain Si mm-hmm. bu avez la un bilan à mi-parcours lan ce nga ma wax quoi. franchement. Mm. optimiste optimiste la def. D'ailleurs, ailleurs moom laa wax sama sama sama sama gars il m'a nee naa leen man li gis ci terrain partout où nous sommes passés partout dans les même dans les autres pays qui composent comme notre circonscription franchement le constat est le même D'ailleurs, ailleurs nee man sama gars yi ma gis ci terrain bi bu ñu ko traduire ci urne je pense que on va on, va laminer le euh, Benno Bokk Yakar. parce que effectivement à chaque fois que nous sommes euh, en face des Sénégalais c'est le même discours vous n'avez ils nous disent même que vous n'avez même pas besoin de faire campagne allez rester chez vous. Le 31 juillet, on va s'occuper de Macky Sall. Il faut qu'il parte parce que Macky Sall, quand même, a installé le pays dans une situation catastrophique. Donc, l'espoir est permis. Plus que permis d'ailleurs, c'est l'optimisme qui nous, qui nous anime. wax deug Yalla, sénégalais nañu aussi ci intercoalition je pense quand même que c'est le moment aussi de remercier et de rendre un vibrant hommage à nos leaders. Mm-hmm. parce que s'ils n'avaient pas réussi franchement cette prouesse là ça pouvait être quand même un peu difficile pour nous. Mais quand même, cette prouesse politique nous a permis d'abord d'asseoir notre, notre, notre suprématie partout, dans toutes les circonscriptions, d'ici ou euh, au Sénégal. Et je pense qu'au soir du 31 juillet, les résultats vont nous conforter dans notre optimisme. Oui, non, mais Ibrahim, euh, c'est vrai que Amnignon euh, ñu ngi leen di wax wax bu leen neex mais France aussi dafa am ay zone yoo xam ni Macky pour gagner ko foofu du yomb. Mhm. ah boo seetee Normandie boo seetee côté Yvelines ay euh, Paris sax mun naa de sax di mun na am tuuti débat mais ça va pas être facile quand même euh, pour ngeen ngeen gagner Benno Bokk Yaakaar ah élection élection amul. tout à fait il ne faut pas penser que les élections sont gagnées man discours depuis que ñu commencé en tout cas campagne bi loolu il ne faut jamais penser même si le discours quand même des Sénégalais envers nous est encourageant et nous donne de l'espoir c'est une élection et il faut pas oublier que aussi que France bon, en tout cas, fier pour Maki Tout à fait. Bétélé, peut-être, non Voilà, bon, moi je pense que quand même la situation a <laughs> évolué. Ah, d'accord. Mais il a aussi une base affective. Tout à fait. Quand on la jolie avec Normandie dans mm. l'Aïwarsak, mm. franchement, il faut des résultats en solo. Mm. Mais je pense que nous aussi, si nous présents sur le terrain, ce n'est pas à négliger. D'ailleurs, dimanche passé, on était sur Mante la jolie Aujourd'hui, donc il y a les deux candidats et toute l'équipe de campagne qui va séjourner en Normandie. Moi, je suis resté en Ile-de-France parce qu'on a un meeting tout à l'heure mm. à Savigny-sur-Orge. Mm. Donc, euh, on ne peut pas être partout en même temps. Donc, surtout dernier, euh, dernier jour de campagne, il faut qu'on essaie de se voilà un peu de nous séparer un peu pour ni mm-hmm. dem ni ñi la mm. mais les malades la mën a xamal mooy daal def nañ liggéey Mantes-la-Jolie ak Normandie dinañ fa am ay résultats yo xamni buñ ko cumulé résultats yi nga xamni mom lañ espérer fi à Paris Inshallah, yalla yàlla dinañu may ndam lu ndam et surtout euh, dans le dans le sud aussi euh, parce que opposition gagné woon nañ fa. est-ce que jot ngène ligué li nga xamni dina tax ba seen assiette bi euh, bu yokul aussi bu wagné ko tout à man samedi passé maa ngi dans le sud. Donc, dans le sud, je pense que ça a toujours été une base de l'opposition. Même en 2017, nous, avons nous, nous, PDS, gagné pratiquement dans le sud, avec Marseille et Goyou. Et liggéey bi nga xam euh, renforcer li nga euh, cette intercoalition parce que ñun Marseille nous avons déjà gagné mais si nous avons la nga avons gagné Khalifa Sall le grand parti je pense qu'il n'y aura pas franchement compétition là-bas donc dans le sud même, même dans les autres villes euh, villes hein, au centre partout je pense que là a une inquiétude donc nous, la dernière semaine nous avons nos efforts en ile de france particulièrement à Paris et et et. mais parce que fille, tu xam que élection est dans notre euh, circonscription gis nga gagné Paris intramuros. Mm avec la, proche euh, couronne, beaucoup gagné de manière significative, tu même pas besoin des, autres villes. Parce que 75% de l'électorat, c'est dans Paris Intramuros et, et, la petite couronne. Quand sen c'est un candidat, n'est euh, île de France. quoi. Non, l'unité parce qu'il y a Samba Diouf qui est suppléant qui est en, Belgique. Mais, souvent titulaire il est Oui. Parce que wa Benno Bokaya qui a dañ leen attaquer si loolu ah ñoom dañuy dañu investir des des gens yoo ont ramené non seulement euh, duñu rek ay intellectuels mais aussi dañuy jël compte de certaines particularités alors que yéen daal da ngeen focaliser wu yëpp Île-de-France. ñu xam nga waa Benno nous Yaakaar moom ñëpp war a wax ba mu des xam nga lu tax. Hmm ñoom seen candidat yi ñu choisir comme ni ko Maïssa Touré di waxee. Macky Sall moo jógee Sénégal pour nous présenter ko waa Paris. Benno Bokk Yakar, ñoom candidat yi leen Macky Sall choisiral Macky moo jógee France euh, Sénégal nous di leen ko présenter comme nous, bu l'avez weesoo mais nous, législature bi passé amoon na benn député bu dëkkoon Belgique lan la jariñ waa Belgique. Ah, génne aduna sa ah, yalla ko yalla yalla ko yalla yërëm xari xari aduna xam dëgg yalla xam nga ku génn aduna do mën def ci mom yenn discours yi donc diko ñaanal pour pour dire que ñom mom ñun wax dëgg yalla amuñu ay leçon yu ñuy recevoir ci ñom xam nga député nga dëkk Belgique nga dëkk Angleterre nga dëkk Allemagne nga dëkk France ci yam mais bu ñu la falee yow yow tey ah, bu la falé da nga wara xam ni député circonscription bi nga tout à fait justement lool laa la bëgg wax yo té Ibrahima buñ la falone euh, nga nek député lan ngay def ba ñu ne franchement c'est un bon député. waaw man li ma gisee député. moy hmm. ndaw la lu ñu yónni. ndaw la bu lay yoni. il faut nga déglu ki lay yoni mais il faut que ñu am ñun habitude parce que liñu constaté moy effectivement da ngay ñëw fi nek diaspora di xex di xex di xex ñu jox lay poste de responsabilité. Hmm. nga dag le lien bi le bi le lié woon ak ak la diaspora mais moi je me dis que tout chaque mois weer nous weer jot ñun les députés war nous ñëw rencontrer les associations même les mbootaay la les les les ou des mais yooyu yëpp da nga war dem di recueillir seen i seen soxla recueillir ces i soxla mais nga tënk ko boo demee assemblée nationale ne li mooy problème au sénégalais parce que sénégalais sénégalais yi nekk aussi problème il dafa bari hein il ne faut pas penser que ni France la ñu ou Angleterre la nous gagnons notre vie non nous avons des problèmes C'est des problèmes que l'Assemblée nationale doit prendre en charge mais pour l'Assemblée nationale en charge il faudrait qu'on ait des députés capables d'abord d'avoir en tout cas un lien affectif avec la base pour pouvoir comme je l'ai dit transporter Mm. les doléances au, au niveau de l'Assemblée nationale. kon yow daal Dakar di dem ay séminaire sali wala Afrique comme ça. non non xam nga mom lay wax man ah. moom laay wax suma gars ñun. Mm. en tout cas man. Mm. man may don député bi nga xamni awuma chance ci lolu. xam nga lutax? xam nga si t'as un un coordonnateur comme Maïssa Touré nga xamni mom si les choses ne marchent pas il t'appelle il te dit que ça ne marche pas. nga am un un un un doyen comme Alpha Ndiaye wala ñom Famara wala ñom ma jigéen Daouda Sow nga xamni mom voilà nous ñooñu duñ la may dara autour de nous il y a xam nga ñom ay ñom ben ñom mais tous ces gens là qui sont autour de nous ne nous laisseront pas nous dem di voyager xam nga aussi motax ba député les sénégalais c'est légui pour ñu wax la député lu rafet ci député parce li ñu wax député avantage tout qui dem teud fu noy dem hôtel dem ay séminaire non mais ça, la vocation d'un député c'est pas ça en tout cas pour moi man y a qu'un député il la falé da nga wara en contact permanent avec la base. Hmm. mais voilà ñu les fal parce que vous dites aussi que vous êtes député est-ce que vous dafa un xeex que vous personnellement yow sa une assemblée di nga mener au nom de la diaspora. waaw man dafa assemblée nationale ni muy je pense que sénégalais vous avez ni assemblée nationale yi doxee baax c'est que da nga xamul politique en 10 ans de législature première euh, comment 12e législature 13e législature une proposition de loi c'est-à-dire que. loi une votée assemblée nationale yépp gouvernement a un proposé un projet de loi là tout à fait mais faut c'est catastrophique. faut at il faut les députés. mettre les dans des conditions franchement amuñu prétexte pour ne pas faire leur travail. mais à leur décharge aussi euh, fonctionnement. C'est mon premier combat mm. c'est un combat personnel. c'est la refondation de l'Assemblée nationale et particulièrement ñu le règlement intérieur bu parce que nak waruñu la fal fa nga wara dess je suis le député du président de la République je suis le député de ceci non tu es le député du peuple nous appartenons à des partis politiques d'ailleurs parti politique vocation moi, euh, conquérir le pouvoir mais participer à comment dire à la modernisation de la vie euh, publique et politique mm. mais pour nous, il faut que nous soyons ay député mais effectivement comme ni dit, waxé légui mais bu le nga député bo xamni jangul mënta lire xamul dara te texte de loi malheureusement quoi qu'on puisse dire français lañ koy proposer à l'Assemblée nationale mais bo jàngul français te le député aussi il est laissé à lui à, à lui-même mon assistant parlementaire bu la taxawal dara euh, ça peut être difficile mais nous ñun comme am nañ chance su jàng nañu mën nous lire loi mën nous xam ni ñuy bind loi mën nañu xam ni ñuy ni ñuy def proposition de loi yooyu mom li nga combat personnel la xam yo xam ni bu ñu assemblée nationale il faut que ñu permettre député yi franchement tout gi leen teunk député yi tenki sen bop parce que amna fo na bo fa tolloo yow yaay am sa dignité mais li situation bi ma nek bi ma nek ma ci génne sama bop donc ñu defaraat euh, comment dire euh, euh, règlement intérieur bo xam dina permettre député bi mu def parce que Sénégal xam nga bo défé projet de proposition de loi jëmale ci gouvernement bi gouvernement bi def naan la pour man li ma fi proposer les li ma fi teg mu jóge fi il faut nga défal ma ay proposition alternative manam yow bu dee sa proposition de loi day day day indi day day yokk dépense état bi hmm. dañ naan la da ngay wouti hein, lénen xaliss bo xamné mom la mais loolu boko bëggé def un député da nga né xana bëggomu liggéey té loolu il faut que je pense que parce que aussi il faut qu'il y ait une une, coopération politique entre l'Assemblée nationale et le pouvoir législatif hmm. waxuma nak euh, législatif tok fële di joxe ay injonction man waxuma loolu hmm. mais il faut que qu'il y ait une volonté politique de la part de l'exécutif aussi pour permettre à l'Assemblée nationale de disposer d'autant plus de moyens pour faire son travail. Nous avons des moyens qui sont les plus des hôteliers, des séminaires, des avions, des bouteilles, des alors que sa base est là, il y a des problèmes. Il y a une préoccupation des Sénégalais qui sont ici, c'est les billets d'avion sont chers. Nous avons des en vacances, nous avons des billets pour nous ramener au Sénégal. Mhm. Nous avons parce que les billets 1200, 1300, 1500, c'est difficile keroog euh, am na candidate candidat euh, Benno Bokk APR qui a sa euh, député dina dina dina proposition de loi pour que nous subventionner les titres de transport pour bénéfice des retraités à hauteur de 50%. plus d'autres choses est-ce que yow a genre idée idées mën défendre à l'Assemblée nationale waaw xam nga elle pose mal le problème. Hmm. parce que le problème est plus profond que ça. xam nga que nekk ci réew. Euh, lépp loo je ne askan parce que Air Sénégal c'est une compagnie aérienne c'est une compagnie aérienne nationale mais ce que les Sénégalais ne savent pas c'est que pratiquement nous nous nous nous n'avons cette compagnie que de nom mais l'utiliser pour Air France moo gérer Air France c'est ay intérêt mënuñu am une compagnie nationale man wax naa ko euh, Lyon biñ fa demee samedi ci meeting bi mais effectivement parce que dañu am ay sénégalais ñu interpellé ne ñoom franchement xalaatatuñu parce que le sénégalais quand il se déplace généralement il se déplace en famille. tout à fait mais boo yoree ñeenti nit ñet voilà ñu juróomi nit juróom benn nit ngeen war a dem ñu ne le billet bi 1000 euros la mais faut jëm doo dem mais il faudrait quand même que li ma wax mooy parce que aussi député bi bu amee comment dirais-je euh, mbébét bu baax am yéene bu baax le pouvoir euh, exécutif bi nga xam ne moo a jël décision amul cette volonté politique là ça pose problème Macky Sall bi a créé comment dire compagnie bi lu mu billet bi lu mu cher cher du wessu 400 euros. du du dépasser prix prix corsaire prix corsaire 400 euros. mais gis nañ ni fimné ni billet bi mi ngi moment bi bo demoon ci xol billet bi dépassé na 1000 euros di dem. 1500 1500 euros loolu fan nga boo ci bëggee dem sa ak vacances ak sa famille fo jëm do dem man je pense que effectivement l'Assemblée nationale, effectivement, doit imposer, parce que quand je parle d'imposer, c'est que nous avons la majorité euh, parlementaire absolue. Mais ben, cohabitation des hommes, contrairement à ce que disent les autres. Cohabitation des hommes. Et dans nos projets, il faudrait que Sénégalais moment boo bëgg a dem parce que am na sénégalais yoo xam ne moom léegi mën pendant l'été mënut bëgg mënatuñ dem Sénégal dañuy bàyyi ba ay période voilà nga xam ne billets yi wàcc na te moment yooyu dalay fekk nga liggéey tu es obligé nga def sa nga arrêté yooyu c'est compliqué il faudrait que ñu doon jox la majorité absolue à l'intercoalition pour que ñu mën a proposer sénégalais yi ay tarifs yoo xam ne c'est des tarifs soutenables man mënuma gëm ni Sénégal gii à 5 heures de vol war nga faa dem di fay 1000 euros billet bi warut a dépasser 500 euros loolu il faudrait comme ni ma ko que l'exécutif est ait une volonté politique pour ça. Mm. mais Macky Sall comme ni ma ko waxee moom diaspora bi voilà mon li mu leen jàppee mooy bétail électoral élection ñëwee mu ñëw fi, un ay maletam jaax xaalis fi, jël xaalis jël ay saagakat yoo franchement mënuñu ko apporte dara amul respect ci diaspora bi malheureusement c'est ça D'ailleurs, ailleurs gis nañ ko ci choix ou nit ñi ñi muy choisiral ñaata nit la Macky Sall choisir ñu joggé ci diaspora bi fi particulièrement France ken xamul lu ñu toll mais amaluñu njariñ wa France amul amaluñu njariñ wa Europe buñ ku ci dem d'ailleurs ñaari wër ñetti wër installé wu nga Sénégal faté nga ñi fi nekkoon loolu nak je pense que bu ngeen bëggee mu joggé fi jox leen ñun ñun la majorité parce que ñun buñ ñëwé tok toog loolu dina fi jóge. dinañu ñëwaat euh, Ibrahima si yow. fu mu tollu ni am nañu yeneen témoignage yo xamni euh, dinañ la permettre nga déglu leen après ñu ñëwaat continuer waxtaan bi. Meissa Touré yow yaay coordinateur fédération PDS bu France. Ah, tey nag euh, dañu seet si Ibrahima Diop nekk candidat yow nag xam naa ku fi xam Ibrahima Diop daal euh, kenn gënu la ko xam te sénégalais yu nekk fii kañ bëgg nañu élire ki nga xam ni mat na député yow lan nga len meuna wax yan cede nga meuna indi ci Ibrahima Diop man da yi meuna wax tu ñe remercier ba pare moy tuñ ko fayé député diaspora bi bu yeboo ñu xamné né am nañ député da nga propagande may sa non non propagande parce ah que député sa mission mm -hmm. mooy prendre en charge seni préoccupation c'est-à-dire seeni jafe-jafe newul ne jafe-jafe yépp nga député wara a régler mais dina am jafe jafé yo xamné né war na ko mën poser xam nga soxna nit too ko ko xeebaloo da rek mi ngi mel ne soxya bi faju na c'est un cadre du parti wax na ko sànq si parti bi nga juddoo si parti bi nga yaroo si nga màggee ba tooyu nii donc PDS tout proposé au niveau de la fédération donc moom dafa nekk nit ku ko mérité mais yo yo yo, la ñu doon xaar parce y a doon la fédération bi pasteur c'est c'est principal responsable moo nekk candidat yo nga Ibrahim euh, Ibrahima Diop mooy nekk candidat. man mii bi ma ko de dama daf ma xaw wa c'est normal xam nga mm. bi 2017 man maa ne candidat. candidat. Mm-hmm. 2022 ñu il faut ñu choisir kenen. si soit fédération bi porté wu si Ibrahima Diop pour plusieurs raisons un. fédération PDS Tour France duñ koy wax mënuñu koo wax te waxuñu Ibrahima Diop deuxièmement mënuñoo xooy ku am conviction parce que tamit député yaa ñu daal il faut ñu sécuriser ko c'est-à-dire tuñ fi def député boo xam ne ni suba Macky woo ko mu transhumé wóor nañu ne tu masa transhumé wóor nañu ne tu demee assemblée nationale dina fa défendre mbirum Sénégal yi nga xam ne ne ñoo ko fay wóor nañu ne ñun tuñ ko fay mu dem Sénégal yi tu fay wuti base u Mbuur donc soit fait un solo diaspora bi ñu bari te députés, def député a maire seen dëkk ba ñuy wut chef de quartier seen mais critères il faut ñu ko c'est-à-dire moi, dañ koy fay pour député diaspora au-delà du PDS. Mhm. mais PDS tamit dafa am combat bo au niveau de l'alliance dañ ko wara a moy retour de notre candidat il a mieux pour mu défendre pour nous am des élections libres transparentes inclusives en 2024 kenn ne ko ko pour nous défendre Donc donc critères pour nous duñ ko si booyee. lan comme ça. mais compétence yi donnez xam nga doonu donne da c'est comme l'armée tu ne peux pas avoir le grade de général si ay Vous mbuxum da ngay vous rampé, ramper compétences général commencé gubi gubi gobi moyen nga étudiant nekk cadre ñëw nekk usutin boo pare usutin nga dem si cadre yi nekk cadre yi ñëw si fédération yooyu mooy rampe donc moo tax grade yooyu te koo liggéey moo tax mu am ko moo tax keroog bi ñu réunion ne te ñuy choisir ñun suñu député ah unanimité ñu wax Ibrahima jóg bi biñ ne Ibrahima jóg ñu bëri dañ ne ah man de buggoon naa mais bëggatuma parce que nag ku nekk xam na ku man sa baay mais il ko nangu mais ku fekk ku sa ne ma man sa baye nga ko donc nous ya y jërëjëf. mais mais mais question parce que c'est important aussi. Euh, xam nga sama wolof setul nak mais est-ce que Ibrahima Diop nit la bu ñu né nit la. cela veut dire que en termes de générosité en termes euh, d'humanisme est-ce que dafa nité aussi exactement non lañ ko waxee. Hein? déggoo ñu may wax nee naa mm. fédération PDS France. Mm. ñun sommes ici. c'est-à-dire ñun tuñu sommes choisir pour choisir. des fois sax tooy xool ñu ne dakaar dañuy am yenn problème yi parce que ñun ay décalage ñun dañoo libre c'est-à-dire ñun du ñu ne nit jërëjëf te mérité woo ko bi ñu xooyee ne dañoo war a dem député élection 2022 ñu ne élection yi si histoire u Sénégal yi mooy nekk élection yi gën a am solo parce que dafa am benn waay bu fi ne woon ne juyi iit ñeent rakka yooyu numu ta di kabaar bu njëkk bi bu njëkk bi juróom-ñaari kabaar ya il si que ya mu def juróom-ñaar def que bëgg a defaat ñu ne ko donc il faut ñu Nous nga ne y honnêtement te am yaakaar si manu man gëm ne sama ah tu nekkee député amul kenn pas ne ni ko si jaswara bi mu Nous yo député bi fédération tu war fédération PDS de France parce que man wu war depuis étudiant ya ko mu que mayu UGB après ma nek ministère ñom ñu fay ñew donc la ma xam ci mom yaakaar France ken xamuko ci si parce que and bi tamit yàgg na te yi ñu boye moy ay conviction si parti bi ñu xamanté ba nek mbokk fim nek ni nek ay xarit parce que le PDS aussi de France c'est une famille wu okk kenn ki xuru ne kenen ki donc famille bobu nag lépp yo xam ni gis nga ko ci man mi ngi si moom lépp yo gis si Ibrahima Diom mi ngi si Famara lépp yo gis si Famara mi ngi ma jigen mi ngi Alpha mi ngi si keneen donc famille bobu ño soxla motax mané diaspora bi bu ngeen bii rëccee doo ngeen amati député c'est la vérité bu ñu rëccee dootu ngeen amati député député ay xuusma ñàpp ngeen di am ay député yoo xam ne ne da ngeen di fay ñu dem Sénégal naan ñu ngi fay wuti base ñu ngi fay wuti nu mu di chef de quartier ñu ngi fay wuti yeneen du point de vue compétence qu'on le veuille ou pas il est compétent du point de vue politique cadre politique yooyu mooy yooyu mooy un homme politique un homme politique da ngay nekk cadre politique mooy nga mën a cerner mana def discernement mana xam yi xew ci aduna nga mën jey position un cadre intellectuel moy tu waxe ñu né gongo parmi les candidats il y a plus dynamique il y a plus convaincant il y a plus ñu koy waxé dé mo mo ci gëna am pun su quoi la vérité mais yooyu tamit suñ borom mo koy def ci nit ñi donc PDS djoumout le fait de choisir Ibrahima Diop comme étant leur candidat mais yéegi nag wara def moy kooku na wa PDS ga koy lancé hmm. waa PDS la lancé appel boobu xam nga te ñuy toog naan amuñu candidat suñ candidat ñëwul parti bi dee na Karim ñëwul bëgg ngeen Karim ñëw fay ngeen Ibrahima Diop bëgg ngeen Karim ñëw dem yéen ngeen génn voté jox une majorité àndoon ak intercoalition bu ko defee ya 31 ya première à 9h ku nekk sa kër mu fëgg ya ne ya ñibbisi na on attend plus buñ ko deful na bu fi kenn toogati ti jooy ah. parce que nag à ma moment donné de l'histoire ku nekk dafay jël ay responsabilités

majorité, ka amatul majorité qui est tout. donc c'est notre meilleur candidat. oui euh, merci euh, Je vous remercie lay Je di remercier ñëpp ñu fi teew Maïssa Touré les membres de Daouda Moustapha Père Alpha Eric notre ami vraiment Defna naa Maïssa wax na de euh, notre candidat Ibrahima Diop. Ibrahima Diop a un sens la pour ñun la diaspora non seulement pour la France mais pour toute l'Europe sens parce que am candidat comme moi, un homme déterminé avec toutes les compétences un homme qui est toujours resté fidèle et constant avec avec, l'idéologie du parti donc euh, il qui tient toujours compte effectivement la préoccupation des Sénégalais de l'extérieur loolu nar ñu am benn doute ci moom parce que bi ñu ko amee la assemblée nationale jarul sa ngay wax parce que lu muy li nga xalaat loolu lay wax ci assemblée nationale li ñuy li ñuy li ñuy revendiquer loolu lay revendiquer ci assemblée nationale loolu loolu beneen progrès la ci ci waa comment dirais-je la ci ñi nekk ci bitim réew mi loolu yi ñu nekk ci à l'extérieur d'ailleurs dañu leen réconforter parce que non seulement ñoom Khalifa ñoom euh, euh, Karim Wade Nous dans les dans les manettes mais aussi ça permettra effectivement l'opposition de retrouver effectivement tous ses droits dans la galaxie politique sénégalaise au Sénégal donc candidats euh, candidat comme Ibrahima Diop c'est une chance pour nous Nous, sommes koy et nous, sommes koy ñu comment nous koy vraiment euh, ñu sénégalais yépp nous sommes à l'extérieur comme au Sénégal nga dimbala ñoo nga wane comment seen carte bi ñu woteel fii mais carte wu Yewwi Askan Wi mooy mooy suñu carte bi ñu daan a commandé bulletin bi ñu daan a wateel pour l' opposition de commandant dans l' Europe de l' est de de de l' de du nord et du centre donc boobu la boobu laay ñaan nit ñi yëpp ñu woteel pour Ibrahima Diop Ndiaye Ndeye Satala Aliou Sall ñu mën a nekk assemblée national bu ñuy wotee yooyu ñu mun a vraiment am sens pour li ñuy xalaat yëpp li ñuy yëpp. ñom mun nañu nekk ci seen place merci. bilaa bi ni cheytaani rajim euh, maa ngi lay remercier bu baax euh, monsieur sila di nuy sa internet yi aussi di len ziar ñom ñëpp. Euh, ba ma laajee ci Ibrahima Diop dina ci sawat parce que bima ñëwé ci fédération bi yag na yagul parce que man sama point de chute Italie la woon. après hmm. la ñu Paris. alors Ibrahima Diop je l'ai vu. Euh, un jeune fougue fougue am conviction ak détermination bi ñepp wax rek je l'ai vu un jeune fougue après muy di avec l'âge di tempérer di tempérer mais sur le plan intellectuel li mais sa wax rek conviction bi mu am aussi ci mënu ko dindi donc ku fal député assemblée nationale Si on a Ibrahima Diop assemblée nationale le tour est joué ça c'est clair donc je euh, ne sama wax du ci parce que je wax ju bëri sax day kii cat cat dafa gaaw li koy je rek may Ndeye Satala ak Aline Sall ñu dem assemblée nationale leen leen nationale, parce que si fa défendre ñun suñu problème ñun immigré diaspora parce que nous ngi dund ak ñun au Sénégal nous sommes ici. dañuy toog ay at duñ dem Sénégal donc xam nañu problème yi ñuy rencontrer tous les jours fii bu ñu demee dinañ ñu ko défendre donc ñuy fàttali nit ñi rek que suñu bulletin bulletin Yewwi la fii ci ENOC bulletin Yewwi la que bis bu jotee amul jël photo Ablaye Wade butin bi amul photo la ñuy jël dugal ci enveloppe voté ko fële euh, porte de la Villette donc loolu la ñuy ñaax askan bi ñu def ko Ibrahima Diop nag vraiment mënuma wax ci moom lu li ñëpp wax rek moom moo ci nekk ci moom amul dara lu ma siy dindi. xam ni daal yàlla def na ko mu nekk euh, mag macha allah il s'est assagi xam na fi mu bëgg a dem xam na li muy def dégg bañ bañ nañ ko ba moom mooy porter sunu sunu sunu sunu communication au niveau de la fédération c'est lui notre notre chargé de communication. donc xam na bu baax li muy wax xam na li muy def parce que comme Maïssa l'a dit intellectuel intellectuellement il est bien outillé politiquement il est bien outillé parce que am na fu mu jaar am na jaar-jaar am na background bu mag boo xam ni du n'importe qui moo ko mën. donc xam nga boo nekk fii étudiant ba ñëw yàlla di lay def ngay nekk fii di di échelon di gravir ay échelon ba nekk fi professeur fii ci France ça veut dire que toogoon di fo toogoo woon di usurper fonction ak affaire yooyu nekkul ci yooyu moom dëggu laa xam ci moom ak ak gore quoi moom laa xam ci moom parce que gore mooy ki nga xam ne dafa fidèle gëm li mu gëm gëm parteem gëm gëm ay leaderam te Ibrahima Diop mu nekk assemblée nationale mooy Karim Wade ñibbisi na Karim la ñu bëgg et je sais qu'il va défendre ce truc là à l'Assemblée nationale. donc loolu rek laa amoon lu gàtt lu may wax ci Ibrahima Diop bañ a guddal. di ko ñaanal yàlla rek yàlla dafa leen sutura may leen ndam. Alpha Ndiaye moom bokk na si sage parti bi euh, ku bëgg Abdoulaye Wade la parce que quelle que soit difficulté yu PDS am fii euh, musuma dégg ñi ne dafa def retrait dafa démissionner. donc euh, moom mun naa ne ku gis Ibrahima Diop la muy muy màgg kanamam de yakarnani Nani, indi témoignage Alpha. <laughs> cela merci euh, initiative bu pour euh, qu'on parle de mon fils Ibrahima Diop puisque ni la may père la may et dans le gouvernement français de Macron le premier je crois il y avait un seul vrai ministre Mm-hmm. Il y avait un seul le ministre des finances moom moo ministre un vrai ministre Quoi tu peux le présenter tous les députés qui vont être élus de la diaspora le seul qui peut qu'on peut présenter là-bas comme euh, Bruno c'est Ibrahim Diop c'est le seul qui a en matière d'intellectualité. Le ministre des Finances français, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Donc, euh, c'est le seul qui a la même intellectualité comme moi. C'est le même qui a la même carrière comme moi. Et c'est le même qui a la même vision comme moi. Le même Nawa, c'est vraiment Job, c'est ça. Il a grandi ici à mes côtés. a soko ici hé mais vraiment je connais et j'ai confiance totale en lui. Le Maï peut-être tous ceux qui, du PDS qui sont là vont peut-être m'en vouloir. Mais c'est le seul du PDS, d'ici et d'ailleurs, qui mérite d'être élu cette année comme député. C'est le seul. Pourquoi Pourquoi on l'a mis à la communication C'est parce que soit il y a des gens qui ou il y a des femme qui Non c'est son intelligence l'un laa koy yéene yàlla na continuer ak jikkoom bi hmm. yàlla na continuer ak jikkoom bi parce que suba kenn moomu ko fu muy egg suba kenn xamu ko mais lu ma ko yéene rek mu garder jikkoom bi bu ko dara ñëw suba j'aurai toujours confiance en lui toujours Magnifique, ngi fi euh, je serai toujours derrière lui Botawe, je serai toujours derrière lui pour le soutenir à n'importe quel endroit ma boy là, c'est ma dame et je le remercie je l'encourage de connaître tout ce qu'il souhaite Nama suis indi au Sénégal personnel là. Si nous ko élire le 31 na avons ba Karim Maïsawad au Sénégal et en 2020 nous avons a en 2024 jërëjëf bu ñaan rek mu nekk comme comme il est comme Alpha l'a dit parce que moi, je suis c'est un grand orateur Sénégal ñu sommes un si ma seet assemblée nationale ku mel ni moom ci assemblée bëriwul bu amee bëriwul donc dama koy souhaiter euh, le le 31 décembre il may may ñu ndam député à l'Assemblée nationale pour vraiment vraiment euh, le combat des des des Sénégalais de l'extérieur. Moi, je euh, mi à l'extérieur, Je suis am euh, Sénégalais de l'extérieur. Moi, je combattre à l'Assemblée nationale. Mom hmm. la ko euh, bëgg ñaanal. témoignage bobu nga bëgg témoignage la def ci hmm. man un grand orateur mom amna compétence un homme fidèle aussi à notre coordinateur Maïssa Touré. Nous bu fidèles nit fidèle de Maïssa Touré nous sommes nekk na nous parce que Maïssa vraiment un fidèle donc ah, fidèles donc nous eh, euh, témoignages euh, c'est des témoignages qui sont inanimes je pense que sur le parcours politique de Ibrahima euh, mais c'est na ci lu yàgg ñuy wax wax nañ ci. man je parle aussi en tant que ami Ibrahima sama xarit la bu ma xam dans le PDS bu je pense que mais rappelé rappelle ko ci PDS le judo, ci PDS le def armam ci PDS le màggee donc lu mu xam politique biir PDS le ko xam en tant que xarit nous ma xam ci moom ay valeurs yu bari valeurs yu am solo yo nga xam ne tax ma jàpp Ibrahim Diop, sous demain Assemblée nationale, on aura un excellent député. Et c'est une chance, que je pense, pour la diaspora, en tout cas notamment département Europe du Nord, de l'Est et du Centre. Nous sommes nit ko am foule d'abord. C'est important. Nit ko am foule, nit ko am gëm en am loyauté. Bimu ko xamé ba légui ñu nekkon bir PDS jeune Ibrahima Diop valeur yi mu xamé won, loyauté bi won, fidélité bi ko xamé won bobu la nek. Nit nak sous traverser période mu nek mu Si constant soo nga am yaakaar ne su aussi à l'Assemblée nationale dina fa taxawal ñi nga en tout cas ñoom ñoo confiance ci moom ko au-delà de ça aussi il sera un député parce qu'il a des compétences pour être un député à l'Assemblée nationale je pense que li fi ñi wax nañ ko la 12e législature la 13e législature les scandales il fa Sénégalais yi dund bu nga xam ne Sénégalais dañu am problème avec le député Ibrahima Diop wax na je pense bi muy wax il faut que nous réconcilions effectivement le peuple sénégalais à confiance bi ñu am ci et je pense que Ibrahima man dama am loolu sama gëm-gëm la et xam naa ne loolu mooy am assemblée nationale en tout cas dina fa nous taxawaay bu rafet dina fa def liggéey bu am solo parce que loolu la ko xam loolu parcours politique et am solo sous demee assemblée nationale et je pense qu'il fera parmi les meilleurs députés yu nga xamné euh, dina fa Bonjour à tous. Euh, il y a quatre ans, j'ai rencontré euh, Ibrahim Diop et dans une réunion et je me suis lié d'amitié avec lui. J'ai pu voir à travers son combat politique, à travers sa présence dans les manifestations et son, sa capacité à synthétiser tous les désirs des partisans du PDS et à combattre l'opposition actuelle, à, promouvoir euh, le, discours du PDS, sa capacité à synthétiser et à promouvoir euh, le, se battre surtout pour arriver à faire progresser le Sénégal. Ibrahim Diop est un homme compétent, est un homme d'écoute, est un homme de synthèse. C'est effectivement la personne qu'il faut pour défendre le Sénégal. Et croyez-moi, sur parole, cet homme-là, lorsqu'il sera à l'Assemblée nationale, il saura faire progresser le Sénégal. D'une manière démocratique, d'une manière transparente, d'une manière lucide et en toute objectivité. Voilà. C'est mon ami, effectivement, mais il faut reconnaître les qualités de l'homme qui sont intrinsèques et qui sont, qui sont judicieuses pour cela. Euh, si famille Ibrahim Diop nga bokk ñeneen ñi wax nañ nañu mais ñoo ñooñu c'est des amis politiques yow ci famille bi nga bokk lan nga ñu mëna wax est-ce que parce que Ibrahim aussi euh, est-ce que am relation yu baax ak sa famille duguma ci vie privée mais loolu aussi bokk na ci luy tax ñuy mëna juger nit ki hein comme li olof naan euh, bu ñu nee diw baax na dañu nan dañuy lacc ci ndax mbokk yee ko wax. té man mëna ci wax. Mhm. xamné ne nit la ko xamante euh fi mu teg famille. ak li mu ne mooy famille ak ni mu jàppee famille euh, lépp luñ ko joxaat rek mottali la ndax euh, nit gënu ko gore ci nit li ma li ma xam ci ci ci kaw suuf nit lu mu mën a sonn ci nit lu mu mën li ko nit jaral nañ naan gore na mën na sonn ci nit te lépp loo xamante ne tey nitam tey bëgg na ko da ciy taxaw tey ba dee moo tax damay ne di wax ne waa PDS ñoom ñoo ko deseelatul dara li muy wax tout temps chaque jour mu wax ko ndax euh, li muy wax naan du mës a war te du nit kuy war te xamul kuy war suñu famille xamuñu loolu li muy wax chaque jour mu wax ko mu ne ma bés bu ma waree du ma fanaan te chaque jour mu ngi koy dëkkee nit ku gore ku am sutura ci nit koo xamante ne liñ naan euh, euh, li li li ko PDS jaral li ko politique jaral li nga xam ne dëgg jaral nag ko moo tax liñ naan am nañ ci moom confiance ci

yàlla bu yàlla tas yaakaar naan yàlla lafal la cat ba li nga bëgg yaa ko xam yàlla suñu borom def nga àgg ci ak ci jàmm xam ne xam ne xam ne bu boobaa bu ne serez pas déçu parce que ñun famille on n'a jamais été déçu de de lui ndax nit la koo xamante ne parfois dañ koy tooñ sax dañ ko naan est-ce que doo wàllewu suñu famille ndax nit ku dul tooñ lu jafe du wax wax ju déplacé du tooñ nit te ku ko tooñ baal na la moo tax liñ naan euh, euh, am nañ ci moom yaakaar ñun lu ku ci comme li ñuy wax dinañ dem Inshallah en plus yeen ñëpp and ci ginnaw PDS yëpp and ci ginnaw aussi tam avec le mouvement yeewu lu ñëpp àndax mom et tout ça donc yalla du tass yakar te yalla dina ko defal ndam inshallah euh, Ibrahima job de nga nga témoignage yu sa xariti sa mbokki indi yow lan nga ci mëna a waaw di di di len remercier parce que li ma dégg fi tay donc li olofinan sas la. parce que ay nit boy ànd ak ñoom mu yag lool parce que euh, nekkatuñu ay ay frères de parti tout simplement mais nous sommes de de de une famille au sens sénégalais du terme hein. euh, gis nga ku ci am soxla mun na ko soxlay moromam ku ci am jaxlé sa morom jaxlé donc dem nañ ba franchement comme ni ma koy waxe nous sommes une famille au sens sénégalais du terme donc PDS nak loolu moy avantage bi parce que ñun loolu lañu ñu Ablaye Wade jàngal donc di remercier aussi Cheikh mi nga xamni sama mbokk la parce que. Euh, mbokk aussi wax dëgg yàlla lu am solo la ci ci ci doomu aadama parce que man dama dama dama nekk un homme de famille parce que man ci loolu lañ ma yare donc euh, di leen ñaanal parce que lépp lu ñu wax jëmale ko ci man ci ñoom la nekk te fédération bu France moom nee naa leen man dama leen a deseelatul dara deseelatuma leen dara parti démocratique sénégalais deseelatuma leen dara mais c'est l'occasion aussi de rendre un vibrant hommage à maître Abdoulaye Wade bon moom sax yaakaar naa ni amatuñu lu ñuy wax li ci des mooy jëf di ñaan yalla lepp fekk ko fi yalla na ko fi lepp fekk te combat bi ñuy porter 2024 ko 2024 jël Karim Wade yóbbu ko palais euh, présidentiel inshallah lolu aussi ñu ngi ñaan yalla ñëpp ñu fekkee ko mais Ablaye Wade aussi fekkee combat boobu fekkee dénouement bobu fekkee consécration bobu di remercier aussi les sénégalais parce que témoignage bi ñi def ci man sénégalais mom lañ def ci man opposition bi de manière générale pareil donc euh, li ci dess dal moy comme ni ma ko waxee liggéeyee ci dess motax sénégalais le 31 juillet 2022 Nous avons voté pour nous permettre nous députés élus de commencer le 1er juillet le travail té le travail néna len ñun ñeenti axe yi mooy li nga xam ci la reposer suñu suñu action axe bi ci njëkk nekk bi gi Sénégal il faudrait que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle de représentant du peuple mais war nous def ay loi bouclier bouclier fiscal bi fini wax France fini. fini. mais lu tax Sénégal warut a mën Assemblée nationale war na des lois loi yoo xam day prix parce que Macky Sall mënta jël commerçant yi sànni ko ci kaw les sénégalais yi ñuy def ay prix qui c'est hors de portée des des des sénégalais te loolu rôlu l'Assemblée nationale mmh. parce que nous sommes les représentants du peuple Sénégal war nañ faa mën ci dund goo xam ni kenn mais Sénégal da ngay gis ay famille yoo xam ne léegi ay ñaari repas c'est fini am na ñoo xam ne benn repas sax duñ ci jaar mais lu ko waral parce que Macky Sall moom ak ñi mu àndal ñu ngi ndaat ndaataa talax gunda ndaat jël alalu réew mi tokki mais le bas peuple l'écrasante majorité du peuple franchement souffre te ñun député yi nag suñu rôle la ñu jëlee sa population boobu ci souffrance bi buñ ko bëggee daal mu mën a nekk nan ñu jox euh, comment dirais euh, assemblée nationale beneen loi kii bi ci nekk mais toutes ces lois scélérates qui ont été votés par, l'Assemblée nationale sous le dictat de Macky Sall. Mais Koko, bu ñu demee li ñu njëkk a ci Karim Wade ak Khalifa Sall il n'y aura pas d'élection et d'autres ci bokk pas loolu nag li koy jëm nous mooy ñu jox majorité ñu dem assemblée nationale lijjanti je le répète en 2024, si on a la majorité loi yi nga xam ci loi yi ñu euh, euh, rétablir Karim Wade et Khalifa Sall dans leurs droit maintenant ça peut forme bi forme à discuter. Est-ce que révision les procès les donne Est-ce que amnistie les donne Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux gens-là, ces deux comme leaders politiques, excusez-moi, participeront à toutes les élections qui se qui s'organiseront au, Sénégal. Mmh. Les LGDS aussi, moi, l'Assemblée nationale. il faut qu'on nous un, un nouveau type de député. Il faut nous tabaxaat un nouveau règlement intérieur à l'Assemblée nationale il faut que nous jox assemblée euh, député aussi et nous yoo xam nous permettre pour nous lier mais aussi il faut que député députés xam ne aussi faluñu leen pour ñu dem fa man je suis là pour le président de la république je suis là pour tel pour tel pour tel parce que dans dans la conception des sénégalais député mooy mooy ki nga xam dañ koy jox auto bu bees diko jox salaire bu salaire bo xam franchement sénégalais ken mënu ko fa am il faut le dire député li ñeñu fay ak li ñuy liggéey wax dëgg yàlla tay nak mënu ñu la jël xaliss bu day non di la ko jox si vous téléphone ñu jël téléphone vous la wooteel les la neex pour def Si liggéey boo le vous ñu ne billet d'avion mi ngi nii les kër foofa dëkkee ñu un la ñoo lay qui. wala ñu jox logement mais sénégalais defal le loolu le sénégalais je pense que lu fait la hmm. ressources naturelles mom dina bokku ci priorité yi nga la nouvelle assemblée nationale bi nga xamni ñun majorité dañ ko jël parce que Macky Sall jaay na Sénégal hein. Macky Sall a vendu le Sénégal. té loolu nak buñu bëggé bëggee delloowaat Sénégal Sénégal au Sénégalais il faut qu'on puisse dans une écrasante majorité donner une large coalition à une large majorité à l'intercoalition pour que nos actions futures puissent faire l'objet d'une mention honorable sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. D'accord. Dernière question, Ibrahim. Eh, élection aussi, nous devons transformer le référendum pour ou contre le troisième mandat. nous avons un Mais vous savez ce que Un député, si vous fallait, il une mission. Mais si vous pour nous renouveler ce mandat, mais da nga wara présenter un bilan au Sénégalais xam nga man ce j'entends les députés de l'APR ñu taxaw naan Macky Sall fi def li Macky mais ñom lan lañ fi def en tant que député chaque fu ñu dem jox leen majorité Macky Sall parce que mo fi def li mais le député bi nga xam ni dafa bokkoon ci liste Benno Bokk Yaakaar 2017 ñu salfaañe élection yi def seen manigance def seen troupatillage ba am seen seen majorité mais député yoyu ban bilan lañu présenter Sénégalais yi amuñu ko parce que lu fa nekkee moy tatchu ak yuuxu ak saaga gor gu fa dem assemblée nationale taxaw di wax ñu saaga la mais bii paa nag nañ xam ne ay député yu jeune yoo xam ni. xam nañ Sénégal talentueux. mais nag am na yoo xam duñ ko nangul benn benn doomu aadama. Mhm. assemblée nationale moom il faut que ñu xam ni nekkuñu fa pour xeex nekkuñu fa pour saaga dañ faa nekk pour liggéeyal askan bi kon ñoom amuñu amuñu bilan maintenant mais li tax ñëpp xam nañu Macky Sall li tax mu bëgg a rey boppam ci élection yi du lenn lu dul am troisième mandat mais troisième mandat moom Sénégal fii nii pour Macky Sall am ko néna day ray sénégalais yépp suul leen bu hmm. boobaa nag moom bu dee moom rek moo des Sénégal bu dee xëy mu ne da votel boppam pour am troisième mandat mais la question du troisième mandat sera fondamentalement combattue te je pense que loolu du combat rek opposition bi combat wu sénégalais yépp la war a doon amul parti politique parti politique amul société civile amul opposition sénégalais boo xam ne bëgg nga Sénégal rek war ngaa mën a pour xeex troisième mandat mais nag nee naa la pour ñu bañ a àgg foofu parce que troisième mandat bis bu amee ay bakkan yu bari danañ tuuru. Mais pour nous, réglons la question. L'arme qui peut nous permettre de régler le cas Macky Sall, la pathologie Macky Sall, mais c'est dans nos poches, c'est notre carte d'électeur. Il faudra se lever massivement le, 31 juillet, aller très tôt attaquer les bureaux de vote, voter massivement l'intercoalition Yewi et nous donner la majorité pour Boba Makissal Macky Sall xana du troisième mandat mm. parce que troisième mandat mon pour moi la ko ñaari fenn rek la mëna jaar fenn kessé conseil constitutionnel c'est ce waxul nous Parce si on dispose de la majorité à l'Assemblée nationale sur le plan juridique on va gérer cette question là mais le faut que le référendum lay ñëwaat bu euh, conseil constitutionnel référendum lay mën a wala assemblée nationale assemblée nationale nous ñun ñu ko référendum aussi peuple ba le parce que le peuple bi décider da jox yeewi walu euh, comment dirais majorité ba pare wëlbatiku di joxaat leneen Macky Sall donc si nous voulons régler la problématique du troisième mandat il faudra donner une large euh, comme victoire à la l'intercoalition bu boba damay la Macky Sall dotul wax troisième mandat. Hmm. jërëjëf Ibrahima ñu jox la ñaari minute nga wax sa dernier mot. waaw ma ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm sama mbokk yi légui nee naa leen nekkatuñu affaire ay affaire parti ay mbokk lañu donc di gërëm sénégalais di la gërëm yow comme ni ma ko waxé won parce que yow doon nga nit ko xamni loolu aussi il faut que ñu koy euh, témoignage yooyu nit ñi di ko def parce que man 2012 ba légui ma yor communication wu comment dire parti démocratique sénégalais fi donc man m'a am rapport man ak ak ak journaliste yi journaliste bu nek France wala nga nek au Sénégal rapport yi man mako ko gérer mais yow xam nañu ni feug nañ la guddi feug nañ la beut gudd fépp fuñ la massa wo ñëw nga couvrir suñu suñu suñu suñu sunu manifestation mais bu la neexoon nga ni ñi mais am opposition lañ ne mais yow da ngay def sa liggéey ni mu waré amul benn 1 franc ñun wa euh, fédération bu ñu mësa yëkëti yëkkati tuñ ko sax yow yow bobu rapport sax yow instauré wo ko suñu suñu suñu digënté donc tayit ngay def un traitement équitable de l'information fuñu la wo man des fois heure bu ma neex laa lay wo grand ils ont la communiqué li manifestation lo bon nga aussi warna tax aussi sénégalais ñu aussi la presse gudam té assemblée nationale aussi fo yi nga xamni voter di ko def l'aide à la presse mais war nañ ko contrôler di xool ci ban presse la dem parce que li ñu gis mooy Macky Sall dañ naan voté leen ma un milliard deux milliards dama koy séddale presse bi mais li ñu li ñu gis mooy presse bi dañuy taxaw ni ñoom jotuñu kon Macky Sall daa presse boppam boo xam ni ku ànd ak moom bokk ci aide à la presse ku àndut ak moom duñ faalewul la te loolu aussi Sénégal war na faa jeex donc di remercier Sénégalais yi di remercier aussi ñi nga xam ni ñoo nekk dans l'intercoalition toutes les parties prenantes société civile partis politiques des personnes des personnalités indépendantes mais nak li bëgg accès suma suma suma suma suma message bi nga xamni mom lay laay tëjee waxtaan bi mooy. Mhm. intercoalition bi ak euh, Yewwi ak walu dafa am lu ñuy wax un principe de désistement manam dans les 46 départements yi nek euh, comment dire, euh, Sénégal ak circonscription yi nek diaspora bi dañu am lu ñuy wax le principe de désistement manam dañu xol département bu ne ka nga xamni mo fa gëna placer placé bu dee Yewwi la ñu jiital Yewwi waa Wallu topp ci ñoom waa Wallu top ci ñoom nag c'est pas du suivisme top ci ñoom bob dañuy jël ay député yo xamné dañu dañoo nekkoon wala dugal leen ci liste Yewwi bu ñu jëlee kaaw euh, euh, circonscription bi ñu nekk moy Europe du Nord de l'Ouest et du Centre man Parti démocratique sénégalais la bok Yewwi la bok mais sama tur mi ngi ci listu Yewwi donc kon suñu avantage ñun wa Parti démocratique sénégalais ak ñun wa Yewwi wa Wallu moy ñu voter massivement la liste Yewwi où élection yi nag dinañ fa gis bulletin wu Ablaye wad mais Ablaye wad mo joxe ndigal ne fépp fo xamni bannière bi Yewwi moo ko yor sama bulletin bob bu len ko lal c'est-à-dire que Ablaye wad bu démé Dakar tey di voter dina fa teub bulletin yom dem voter bulletin wu parce que loolu mooy accord bi te accord bi nag suñu euh, leader yi la jógee fi ñu nek en Europe de l'Ouest du Nord et du Centre wa PDS yépp ak wa wàllu yépp bu ñu ñëwé bulletin bi nga xamni ni bulletin Yewwi la neex naa parce que mooy le seul bulletin bi nga xam ni amul photo li ko waral nag duñ ci dellu si waat loolu Macky Sall la mais s'il pensait que franchement c'était pour déstabiliser l'intercoalition c'est peine perdue donc bulletin boobu la ñuy choisir boo duggee ci bureau de vote bi obligation la nga choisir parce que huit bulletins ngay gis mais tu es obligé nga tànn juróomi bulletin mënoo weesu boo deelee ñeent président bureau de vote bi danaa la sa boo ko boo voté it du ma duñu voilà duñu comptabiliser sa vote boo duggee ci bureau de vote bi da ngay jël minimum

dañ koy comptabiliser au niveau national te wóoru la mu am comment effet au niveau national alors que le défi, c'est un scrutin majoritaire benn bulletin rek mën def la différence donc may lancer un comment un appel à tous les responsables à tous les militants ñu accentuer la communication par rapport à ça donc il lancer aussi un appel à tous les Sénégalais pour qu'on ait des, élections apaisées libres démocratiques et transparentes parce que beaucoup mbuxuj yeeg euh, yii waa consulat ak waa ambassade yi ñu bëgg commencer au lieu ñu y ñu ay bulletins yu doy ñu né par exemple 300 bulletins 400 bulletins andil wa Benno Bokk ya 3500 bulletins c'est du sabotage ça ne marchera pas le jour des élections nous serons très vigilants pour que l'équité et l'égalité qui est à la base de toute élection puisse être respectée nous sommes des Sénégalais comme tout autre nos droits en matière électorale doivent être respectés. jërëjëf jërëjëf trop euh, ak Ibrahima. Euh, qui sa participation aux élections législatives euh, sans parti pris nak duñ duñ la plein succès parce que beaucoup ñu ci mais dañuy ñaan rek yalla def lu gën ci ñun sénégalais hein ah, lolu lolu mo moo jara ñaan jërëjëf Notice I